jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontante ak mbégte <clears throat> ñu leen koy defalee saa su ne ñu ñëwaat fi géejawaay seet si champion mi seen Sène junior nekk ndaanaan kenn du leen ko présenté ñaari combat bi mujj gis nga xale yi nga xamante ni ay ndaanaan lañ ci làmb ñoom la mujjee bëreel am ndam ci seen kaw benn bi Bour Sine bu Bawol ñaare bi di Kalmandour Grand Mbagnick mu wane ay preuve ci làmb waaye actuellement ba léegi ñu ngi gis ama Sène mu ngi ci lancé bi mu nekkoon ba tey loolu waral ñu seet si ko ngir bëgg a waxtaan ak moom ci lu baree bare ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu baax di la siyaar waaw ba jén lay fay di wax ne auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur sant sama sëriñ suñu moroom laay fàndal ñaan yàlla suñu borom yokk leeram te tas ci barkeem di siyaar sama sëriñ si Cheikh Bintu Fall di siyaar waa Kawsara Fall ak waa Ndar Fall yëpp di siyaar kuluhum Baye Fall xam nga di nuy waa place bi nga ma fekk tey jii fi nekk mooy ASA euh, ak soxna si comment dire que sax Yaas Coutir ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax. Hmm. moom bu baax la ñëw mu yaatal di suma nit suma xarit di siyaar yëpp di nuyu waa Mbaar mi aussi di nuyu Géejawaay di nuyu waa Jurbel xam nga di nuyu waa Mbuur aussi di nuyu Géejawaay yëpp bàyyiwuñ fenn fenn fenn. la mm. wax na welcome dalal ak jàmm Eumeu mm. diggante bi nga jógee ci Grand Mbagnick ba léegi lan moo tax Eumeu Sène bëriwul joxul avance avance buñ ko jox mu delloo ko xeeb ay nawle mbërëm lan la non Eumeu Sène xeebu benn nawle mbërëm peut-être mbërëm yi waxoon nañ fi tonnerre mu ba ci yàgg mu yàqu après dem na jëri Dame Sène xam nga keneen ak keneen Serigne Ndiaye sama moom suñ combat gars yi bëggoon nañ ko fi mais xaw ma lu ko tax a témbeel Ndiaye ban Serigne Ndiaye bu Fass Coréas. Coréas waaw mais comme moom suñu borom dogal na maa ngi koy dégg muy def ay sorteem naan kii te moom six combat la am man maa am dix-sept man maa taxawoon pare woon na taxawoon na pare naa pour bëri ak moom comme maa ngi koy def ay sorteem bon mun na wuti leneen ma wuti leneen ba keroog ñu làmb duñu boole ndax làmb boole wuñu woon man maa pare woon pour bëri ak moom. dama koy bàyyi ne rek ba keroog xam nga làmb ñu boole man ak moom. Mm-hmm. xam nga di waxaat ne musuma delloo avance kenn. musuma non sortie bi ngay wax ci Serigne Ndiaye lan la wax ci yow ba nga ne doo bëri. waaw gis naa ñu dëkk ko micro ne ko Eumeu Sène si maa leen bu leen ma waxati waxu kooku bu leen ma waxati waxu kooku j'espère la wax yaakaar naa te comme demee ne noonu jarul ma ci sonn quoi man maa bëggoon may ko sansam rek. Hmm. xam nga mais comme demee ne noonu na wut leneen xam nga hmm. parce que laa mujj ni boole. yéen ñaar kan moo bëggoon dox combat boobu. waaw bo Gaston bëggoon na ko fi ay temps euh, mais kase bi ma fayoon gënalu ma. Hmm. moo tax combat bi taxawul. bon j'espère que Jax ak Habib Lecran doon nañ ko dox. Hmm. mais yaakaar naa boobu moom j'espère que ci ñoom la cangee xaw ma ay affaire trois mois quatre mois xaw doo comprendre. Hmm. mais comme demee na noonu man maa waxatul waxu Serigne Ndiaye. lu tax da nga mujjee daw. non waaw mën na nekk daw sax bu la neexee gars yi gisee ko noonu mais man maa waxatul waxu Serigne Ndiaye pour bëree ak moom puisque man la doon neex ma bëree ak Serigne Ndiaye parce que maa ko raw ci làmb et puis fuuf man maa raw Serigne Ndiaye ci làmb fuuf six combats la man ma am dix sept combats. samay cinq défaites rek daanaka ni mu méngoon ak ay ay ay combat am. Mm. comme maa ngi ko dégg mu ay na déedéet bu leen ma wax kii ak bu ma kenn wax du wax Serigne Ndiaye man tamit. non est-ce que jàppul ni dafa ragal dañ laa seet si. nangoo jël avance bi mu jàpp ni. mu ko jàpp seen junior bi ñemewu ma. non donc am dara faaw parce que daa jàpp ni boo boo ko ñemewoon di nga jël avance am mais Serigne Ndiaye moom xanaa du la ragal yow mi non yaakaaruma mu ragal moom peut lu li ma li ko arrangé lay def rek di ko arrangé lay def. mais man maa waxatul tey waxam ci côté cadre bëri ak moom xanaa ca kanam mu prouvé bu bax ci làmb ñu soog a bëri man ak moom. kon instant non bokkul ci sama ay est-ce war naa wax loolu du ma bëri ak parce que gis nañ ci ay mbër yu ko fi waxoon mujj gi dañu mujjee jëlaat avance bi wala ñu mujjee soxla adversaire boobu est-ce wóor na. waxuma ba tey du ma bëri ak Serigne Ndiaye actuellement laa wax. Hmm. mën na dem wuti leneen. ba keroog muy prouvé ci làmb pour bëri ak man ndax six combats la am. Hmm. man maa ngi ci dix sept combats. Hmm. man ma dem wuti samay morom xam nga bëree ak ñoom moom mu bëree ay morom mhm. voilà mais yow bu dul Serigne Ndiaye am seen senior kan la mën a bëree ci làmb ji. Zarko nekk na fi tàppat ba dem lu yomb doomu dàngu moom mbër yëpp moo ci gën a bëgg lu yomb yow kan nga fi daan sox ak kan Jordan yaakaar na sa làmb jeex na. revient sur terre champion munoo def ci làmb lu tax raw ñu boo ñu jëlul dañoo ragal da ngaa tàppat dong moo tax munoo ñun. mais doomu dàngu ndaanaan la de. kenn waxatul loolu. ndaanaa la mais bu mu daan ñaari mbër yaakaar na soq nga daan ay ah, Jordan Jordan toog na trois ans xaw ma quatre ans bëriwul nga bëgg nga jékki-jékki salaamu jeex nga joxe nga naan ay fii ak fa defoo dara ci làmb defoo lu ñu deful ci làmb komba yi ñu tegale gladiateur yi ñu tegale daal leen daanoo leen il revient sur le terre champion. boo boo ñu jëlul amoo kenn koy jël. combat beneen combat booy xalaat ci man ak kooku la gën a jekk kayam. encore une fois doomu daangu ragal moo tax ngay moytu Eumeu Sène junior ragal ak yëfu tapet man ak yow ñoo fi nekk te buñ bëriwul ñu naan ñëpp am balance encore te ngeen ne ana balance ñu naan ñëpp am balance lu am gars yi dafa am gauche gars yi nekk nañ bëri ma ak moom. moom kese ñoo fi mën a nekk ñu mën a bëri man ak moom kese làmb ji neex amateur yi ñëw kontaan waa Diourbel génn waa Mbour génn làmb ji saf sàpp mu nekk fi naan ay kii Jigéen junior du la jël Euh, comment dire que keneen ki ngay wax xaw ma mburu yaraax bi. Moussa Ndoye Moussa Ndoye du la jël. lu tax duñ ko man maa fi nekk non. mais ndaanaan la mais neel yow bëgg ngaa moom rek mais bul ko wax ñooñu duñ ko jël. man su ma bëggee bëreeg moom def naa ay preuve yu tax ñooñu mun ko jël. su ma bëggee bëreeg euh, doomu daangu sax parce que dañu war a bëri man ak moom mais doomu daangu defu ci làmb lu ma deful nañu bàyyi ak ay dix ay ay ay vingt et am doomu daangu vingt et un am na wax mbëri na si mbëri mais moo la gën a baax palmarès. na ciblé mbër yi mu daan. moo la gën a baax palmarès. ba tey mën na nekk man am nga ñaata 17 combat laa am ma victoire moom na ciblé mbër yi daan man mën naa taxaw wax la de A à Z mbër yi ma daan. waxal te ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. noo faw nga lim. fii sen bu caaroy. fii sen. waaw naan naan la. limal sàkkal. sàkkal mel ne bu rock énergie. limal. jigir bu lamsaar. naan naan limal Baye bu Jurbel limen xamoo ko mën naa nekk waaw Cheikh Niang bu Jurbel Cheikh Niang mën naa nekk hmm. Kaaw Siise menn bu Dalifort mën naa nekk ndaanaan euh, Malam Ñaani menn mën naa nekk ah euh, ñëwaatal général Malika mën naa nekk général Malika daan nga ko yàgg na kenn waxatu ko général malik mën naa nekk Buur Siin mën na nekk Kalmunduur mën naa ne non yow booy gën a tooy yaa leen daal. non moom dafa nekk fi am. vraiment na lim ay ay. vraiment vraiment na lim na lim. non daanaka combat muy wax na lim mbër kana kana la daan. man doo kii moo daan euh, mu Awa Tine moo ma daan. Modou Awa meen na. Euh, champion bu mag. waaw. kii. Fallaye Baldé numéro 2. Fallaye Baldé te ana boobu la seen génération. daan la daan daan. est ce que di la ko yow la njëkk a ñu ci man la ñëw mais man dama ko du moom bëgg a dee. non mais moo la daan rek. Ah, moo la daan moo la daan ñëwal na de Moussa Ndoye. Moussa man na cinq défaites yu leer nañ laa mais yow ñi la daan sax ay ndaanaan lañ mais ci actuellement nii est ce que tey. waaw bu ñu tëggoon Eumeu seen junior ak Gris 2. waaw du du yoonu lamb ju neex. lamb ju neex la moom tamit. nañ ñëw wax ji mbëre ak ay moom ay non ñemewoo jël Gris dama lay barki seerafa lam baara tontu lay doon te buñ doon bëre man a moom bu ñëwee ci stade bi xam lu may ëpp ab xol kese amul leen lu may ëpp Gris 2 men du doon fit du doon doole du doon entraînement du doon dara bisaay nag peut-être crossorol la may ëpp mënu ma crossorol mooy geres biir geres moom biir moom crossorol kese la mais à part loolu ñoom nañ ñëw bëri ak seen ay morom bi dañ leen tëbal moo tax ñu problème adversaire mais am seen bi ñuy bëri Abdou warul bi ñuy bëri ak keneen warul lañ leen tëbal moo tax ñu am problème adversaire duñ ñu war a bëri ñi ngi ñiy tax non mais Gris 2 dañ koy wutal yi kenn ñemewu ko man dama xamul ba xam yow ci nëpp am seen junior doo ko dara loolu de parce que Serigne Bamba moom te ñëwuma pour ay niil ak Gris wala ma ñëw pour ay buuxante moom dama ñëw pour am ndam ci kawam parce que maam chèvre muuru baay xam na loolu yow ñeme ngaa taxaw arène nationale. loolu du fee arbitre ni Gris 2 taxawal nii ne nga af. su bëggee ñu suuf suñuy tànk mu jiite droite ma jiite sama góof ñu suuf suñuy tànk rang-rang di mel na xay. kan moo la dee. kan moo ma dee comme nag. kan moo la dee quoi confiance bi ngay. dee non bi question man gis nga mbiri yàlla suñu borom ku ci génne sa bopp sa yow la yow ndam yàlla moo ko moom te ñun ay jaamu yàlla lañ kon yàlla suñu borom lépp mu am ñun ci lañ bokk buñ jàppee ne mënuñu ko am kon boobu loolu ñun la suñu gëm-gëm lépp lu yàlla suñu borom di séddale lañ tey war am ñun loolu mooy suñu gëm-gëm. Hmm. Gris 2 lu mu def fi làmb say grand frère yoo xamante ni daa nga pare nañ ci làmb. non ay moromam lu bëreel de. kan la man moromam. Ablaye Ndiaye bu Robert. Rëg Rëg. Ablaye Ndiaye bu ñëw bu bëreeg Gris 2. Rëg Rëg Ablaye Ndiaye boobu dafa feebar. Elton Elton ak ak. yeneen champion. moog Elton ku daan. ak ak ak kee nu Elton ku daan moo daan Elton. moo daan Jordan. Ah, mën na waaw moom moom Jordan. moom stade Léopold Sédar Senghor la woon. waaw ku daan moom moom moom ji Jordan. moo daan Jordan. fan moo daan bébé Saloum. moom Jordan bëriwuñ. Jordan man. Jordan bàyyi seen ni ngay def. ban Jordan ngay wax. ban Jordan nga xam. Jordan bu taasi la. waaw moom diir la fan lañ bëree. ah bëri nañ de sama hmm. gars yi bëriwuñu. Hmm, yow yaa ngi nelaw <laughs> yow bi yaa ngi nelaw yow bi yaa ngi nelaw. non Jordan. Jordan j'espère que ci ci rëg rëg la mujjee bëree rëg rëg. non la mujjee bëree bu ñëwee. ah rëg rëg la bëree waaw wax nga dëgg rëg rëg Gris 2 bëriwul ak Elton bëriwul ak Elton droite bu ko dara day wàcc bëriwul ak Elton <laughs> Abdou Diouf jëyal ba Abdou Diouf la fi bëreel ak Mansour non nekk yaa ngi liir Gris 2 dama la bëggoon sànni mais nekk nekk am nga lecture non non nañu waxante dëgg Ansu la fi daan ah, Ansu Ansu la fi daan Géejawaay ak Abdou Diouf Abdou Diouf mi ngi daan Abdou ah, grand frère dafa parewul morom mais Abdou Diouf du morom du moromam sax mais na nañu ñun dañu ñëw bëri ak seen morom yi moo gën seen tëbal yi seen lamb day gën a yéex dañuy gën a am problème adversaire mais léegi yow Gris 2 tey bu ñu la woowoon teg promoteur woo la. waaw parce que xam nga ñeme naa diw wala damay jël diw ñëpp xam nañ ci làmb ni mu demee. waaw mbëri des fois ñu ne bëgg naa diw. Mhm. mais bu ñu leen woowee kase bi ñuy laaj raisonnable tey yow yaa Gris 2 bu ngeen raisonnable tey mhm. yéen ñaar ngeen laaj li ngeen war a laaj. Mhm. combat bu mel nii Balla Gaye Boy Niang jaar na ngeen bëri ci spécial parce que làmb yi dafa war a am. grand combat yi faw ñu am ñu ay ndaanaan yu leen bootal ñu bëre stade bi neex mu nekk loo xamante ne dañ koy offrir amateur yëpp. Ah. pare nga pour lool. ma wax la leen. Ah. gis nga làmb pour mu dekkiwaat. Ah. pour làmb dekkiwaat. làmb ji di feesee comme nam daan feesee. gars yi fale ko ñu nangu yi taroon yi ñu ngi dem ndox ma yenn tanoor yi ñu ngi génn ku ci bëriwaat deux ans trois ans dootul bëriwaat. espoir yi comme ni ñu doon defal ñoom Balla Gaye di yéegal espoir yi. Hmm. falee ko loolu am. falee ko ñu yéegal espoir yi espoir yi prouvé la laa wax. yan espoir nga jàpp ni tey cinq wala dix personnes yoo xam ne jàpp nga ni ñii jaadu na ñu yëg te bu ñu yëgee ci kaw mën nañ fa am dara. léegi ma wax la leen Eumeu Sène junior. waaw benn. ah séddale tabala ci kudd yi loolu dama def sama preuve ci làmb te ñoom ñëpp kenn nekkuma ci bëre d'accord man maag ay ñoom Ama Baldé ay Boy Niang ay Sa Thiès ñoo bërendoo wërsëg nag moo yemul te li ñu am dama leen ko yéene dëgg baax a baax a baax ay ca ñëwal ama seen junior waaw doomu dàngu Gris 2 Moussa Ndoye ñooñu seen biir ñi toog ñi daan yéeg hmm. waaw dañoo war a bëre seen biir ñi daanu toog ñi daan yéeg garga de boobu fu muy génne ah, garga de tamit ci la bokk fi sa baal sax ñëw na ci Mama Lamine nañ waxante dëgg mais ñëwagul ci gars yi Mama Lamine ñëwagul ci gars yi. Mama Lamine men tarki naa ñëwagul ci gars yi coow leen coow coow li moo boole ci ci ci ci ci ful bi nii rek mais ñëwaguñ ci gars yi barki Sëriñ Bamba ñëwaguñ ci gars yi ay Mama Lamine yooyu ñëwaguñ ci gars de. Hmm. duul moteur bi ma lay wax nii Alain rente dégâts maa ngi koy siyaar bu baax di ko jox wàccu nda dafa jàpp sama loxo jàpp ci loxoom ne ko su ngeen paree ma jox leen avancé ñaar mu jàpp ma yëngal peese def lu ko neex xam lu ma ci tegal dama bëri ci ñoom rëg-rëg sa adversaire parce que maam Serap amoon na ay amoon na ay nit yu fa nekk ñu bari. Hmm. waaw mais li ma mën a xamal daal mooy jili làmb ji fii ak ñun bëriwuñ suñu biir ñu ñi nga xam ne ñoo war a bëri te bàyyi moytonte beeg ak yaakaar na yegg naa te commencé goo moo ñu sonal boo gisee mu seen senior ñëw di ay calme du sax parce que ñu war a bëree du bëree ñoom hmm. mais calme bu koy jël maa ngi moom duñ benn mais boo bëree mbër nga boo bëriwul jour nga wala nga nekk wala nga nekk doon leneen hmm. loolu moo war a ma jël calme dama koo jël ak sama sama sama sama njortu gu rafet ak sama gëm-gëm mais mënoon naa ñëw yàlla suñu borom mu dogam mu daan ma sama hmm. carrière day day gën na sax hmm. loolu man la concerné jarul kenn di basé naan ay diw la mujjee daan diw boo koy daan maa ko raw te moo koy daan kenn nangu ko jël man naa ko jël convaincre samay mbokk sax nanguwuñ ma convaincre samay mbokk convaincre ñëpp ne dama rafet très peut bi sax laa ko jël daal peut-être hmm. laa ko jëloon Mhm. mais nga jël Calme Ndour am nga ci ndam. actuellement nii gis nga combinaison yi taxaw ci làmb. Mhm. bala Gaye Boy Niang dañu war a bëri le premier janvier. Mhm. gis nga ak euh, Sa taxaw na. Modou Lo Boy Niang Boy Gris Bordeaux Ama Baldé taxaw na. Ah. man nag daa mel ni ndekkee ma de Gris Bordeaux Ama Baldé taxaw na. Modou Lo Ama Baldé dinañ bëri. combinaison yooyu noo ko gisee. waaw combat la wax dëgg fa yàlla combat bis yooyu noonu làmb daf koy xaar ko pas hmm. ay ay ay grand frère di bëre làmb teg xel. Hmm. làmb des fois dañ ciy xaar jànq. comme ay jamono nit ñoom amul seen ak booy ak ak la dëgër tollee ak amul seen ak Balla Gaye. amul hmm. seen giriboro ay temps bi ñu tollee. làmb jànq yooyu noonu dafa neex. mais tey ji gars yi xaaratul làmb làmb teg xel wala làmb naxante gars yi des fois dañ koy nam du ñàkk ci saison bi nag. parce que tey jii nit bi amagul quarante sept ans làmb ji bokk. am na fu muy toll mag moom bu duggee rek doole day wàññeeku. Hmm. te doole bu wàññeekoo xel day yokk. Hmm. kon faaw nga jéem a doole bi pour naxante pour daan. mais Ama Baldé dafa mel ni dafa topp ci tànk Balla Gaye 2 ndax actuellement nii mu ngi ci ñaari contrat yoo xam ne avance yi mun na ko bëri kon Ama war na mën a jël quatre komba waaw mais comme ni mu ko waxee Balla gay frère am la te idole la c' normal lu Balla Gaye def mu def ko bu dalee xelam loolu la am na non jël ñeenti avance pour man du handicapé mbër ah, parce que mbëri moom kaa ma xamal la ñaar bàyyi ji. Hmm. ñu lekk sa avance ñu ñàkkale sa avance ñu ngi lay liggéey. Hmm. mbëri dañoo ñeme liggéeyaat dañoo ñeme liggéeyaat ñoo raw jigéen ju ju ju wujje dañuy xëy jëlal sëf ak suula ak def yëf. ko koo amuloo contrat bëri woog moom. bëri loolu dara ñoom dañuy xëy jëlal suñu faxar reen ba jant bi soo moo xel nangu na loolu. non waxuma la caaxaan. mbëri yow mosuñ la liggéey. man moom mosuma ko bàyyi xel. man moom daanaka mbalitu Cheikh Rafal la mais mos ngaa liggéey nit waaye nag suñu borom bu bu yàlla waxalee su ma waxee dëgg rek waaw ah. ma dem ci ci sëriñ nan ko damaa bëgg dóor ko mu daanoo damaa bëgg lii ndam lay ñaan waaw mais ndam des fois ñu jox la ay sëf parce que des fois nga dem ñu jox la sëf lam la bokk waaw ah, suulal li léegi loolu liggéey la loolu liggéey la bokk gis yow des fois sax yow mu sëf ni déedéet non man non xam nga man maa lay laaj fu toll nii man kal laay sëf yow ji xool <laughs> xanaa yow laay sëf. adduna adduna oh. bépp liggéey boo gis am na ñaan jékki-jékki war a dem wàcc na nationale ay xaaral ma sangu tey jii rek la ñuy tudd tey jii li rek barke Cheikh Fall jii li rek. loolu loolu bañuñu ko. waaw loolu d'accord nañ loolu ci réew mi lañu ko fekk. merci suñu aada la ak suñu. waaw merci mais liggéey nit laa wax liggéey ko ba du la gis bu arbitre ne prime nga dóor ko mu nelaw wala yu mel noonu danga koy def. parce que mbër nga nag ama seet waaw waaw indi affaire waaw waaw waaw loolu peut être xam naa maaraay ñoo koy xam parce que ñoom peut être ñoom ñoo ah, ko mais ñu ngi lay liggéeyal ah waxuñu ñoom waxuñu ñu ngi may liggéey kenn yàlla na la yàlla may ndam daal lañ may wax man ñi may ñaanal ma fonk leen hmm. luñ na ma yàlla la yàlla may ndam lu tax ma ngi leen di siyaar bu baax a a baax am na waxtaan boo xam ne war nañ cee yaatal maag yow ci biir waxtaan bi hmm. muy suma benn sëriñ bu nekk mbuur hmm. ñu koy wax sëriñ Modou Cissé Hmm. dafa am daara ju muy taxawal. Hmm. ñu ciy woo ñëpp bonne volonté yëpp dañ ciy woo pour daara ji taxaw. incha allah waaw kooku su ne ma woon fayal say bor suba da ngay gaañu ginnaaw ma ñëpp ne leen ginnaaw suba damay gaañu. macha allah parce que nit bu nga xam ne ku nangoo sonn si man la ku ku ku ma bëgg te yàlla tax la. Hmm. ba pare bëgg suma famille. Lamine Touré sama xarit moom ma boole ak moom lépp ma boole ak jàpp. parce que su sama xarit bi bëreeg benn mbër sax daf may laaj ndax naa ma ndax ma jàppale mbër bee. parce que maam Serap Fall. ndeysaan loolu yëg-yëg la mais dañuy ñëw ci Modou Lo am ba Balla Gaye nañ Balla Gaye génn bi mu jugee ci Gris Bordeaux rek attaqué Modou Lo de Balla góor Sock Balla Gaye génn def sorti ne Modou du waa parcelle mosuñu koo yëpp te duñ ko mos a yëpp mhm. te Modou Lo même bu nekkoon Sénégal du ñëw ci làmb ci Modou tamit def sorti moom it mhm. attaqué Balla ne man amul benn góor yàlla bu may ragal te moom am na yoo xamante ne moom rus na ko am yenn forme yi bu ko amee du simmeeku boo déggee loolu ci ñoom ñaari mbëri loo ci jàngat dañuy classante wala dañoo bëgg a bëriwaat troisième combat. waaw tey jii Balla Gaye boo xoolee boo xaree xolom boobu di nga ko fekkaat nekkaat roi des arènes te roi des arènes bi tey jii mi ngi ci loxoy Modou te Balla Gaye yeb na Modou Lo yeb boo xamante ni fu nga ko fekk dana ko demal tëdd Modou Lo boo waxee loolu Balla Gaye wax loolu peut seen yaram yi day xasanaat ñoom dañ ko bëgg a laalewaat. ah waaw waaw une fois. yi ne Babou ñaar ñoom lañ fi bëri. ñett yoon non loolu dafa waram ci làmb bu njëkk day gis paa yi ñaari mbër dañuy bëri ci ci ci ci weer la dañ ci bëri ay quatre cinq fois. loolu dafa dara. Balla Gaye Modou kon Sénégalais yi doyaluñ ci. loolu xamoo ci doyal loolu événement la. loolu événement la xam nga mujj bi ñëpp dañu ne woon Balla Gaye du ci dara parce que Modou Lo moo art Balla Gaye dafa inapte Balla Gaye ñëw wane lu doy waar ci làmb suñu toll nii ba tey gars yi bàyyiwul wax boobu ba tey ñu naan Balla ko ne liggéey Modou lu moom ba tey gars na ñu naan foo ko fekk athlète la dafa day ne ci forme dañ ñëwaat comme ça mu ñëwaat Balla Gaye taxaw une troisième fois mu nettoie. Hmm. oui. am na solo cent pour cent géejawaay bi. waaw actuellement gis nga coow yi nga xamante ni jotoon na fee juddu ci yenn mbër ku mel ni Lac de Guiers Balla ku mel ni Gouye Gui ak euh, comment dire Bou Siteu ak ñeneen ak ñeneen. mais dafa mel ni yéen a ngi retrouver waat seen biir euh, di di di neexoo yow cent pour cent Guédiawaye ban position nga ci taxawee waaw damay damay damay damay dañuy musu ci boobu hmm. suñu borom musal ñu ci hmm. gën a àndoo ak ñëpp ah. hmm. gën ànd gën a parce que àdduna foo ko ànd moo gën taxali ko waaw lu rafet moo gën lu ñaaw cent pour cent Aline Seye 2 Eumeu Sène Junior Marley nanani nanana ak ñëpp ay fils de Balla Mbaye mm. Tine ay ñambaan gaa yëpp ci lañ ne gaa yëpp ci lañ ne te ñëpp jàmm lañ seeq mm-hmm. des fois nag du ñàkk réeroo am mais bu réeroo amee xam nga li gars yi di wax naan góor yàlla soo meree bul wax mm-hmm. effacé wu ba giif nga soog a wax bon dañuy ñaax grand frère yi ci mel na Balla Gaye de xam nga Lac de ñoom bu ñu réeroo ñun duñu am position mm-hmm. ñoom fale ko ñuy nekk ci yoon bi tout le temps ba ko ñoom ñoo jiitu ñun nag boo jiitoo da ngay bàyyi say say say say rakk xel. Mm-hmm. que boo jàddee ñoom mën nañ jàdd. soo jàddee cër bi ñu la jox ñoom yow mën nga faa xeeblu sa bopp ñoom fale ñu gën a ànd gën gën a gën a neexoo seen biir. Mm-hmm. loolu moo am solo. xam nga loolu moo di am solo. ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp di ñaanal la dëgër moom combat di ñaanal Balla Gaye combat yi ne si kanam moom yàlla suñu borom may ko ci ci barke Serap Fall. Hmm. di ñaanal guy gi moom combat ñun ñëpp am combat incha allah. di nuyu Alioune hmm. Seye bu baax a baax a baax. Hmm. moom mbokku Baye Fall la. man ku bëgg Seera Fall la bëgg naa laa waaw juboo guy gi ak bu Siteu noo ko gisee. ñaar pele ñaay. waaw ah. ñaar ñoom ñaar ay gànnaar lañ dañoo yàgg na. <laughs> borom xaw ma pompe à gaz ak borom bisil. <laughs> daal ko looba dóor bu laa ko bisil. <laughs> non est-ce bu Siteu lee la ko bisil guy gi la ko sii. mënu nekk Papa Diaw loolu misir rek la mën a def <laughs> ay gaañ lañ nag mais puisque ah. comme jàmm am na ci rek mhm. loolu mooy l'essentiel bi quoi ñu leen di nga réeroo yàlla bu mu amati mhm. nga que ay bu ñu nekkee xam nga dañuy yenente jàmm bëggante soppante mhm. loolu mooy àdduna ay ay ay góor yàlla bu ñu nekkee des fois du ñàkk ñu réeroo mais ñu réeroo nañ xool li rafet ñu def ko tout le solo ma leen di ñaanal bu baax a baax a baax lii yàlla na fi géej bu baax a baax a baax yàlla na fi géej barki maam Cheikh Fall coow baaxul yàlla ñu yàlla musal ci coow. Hmm. man boo gisee jour boobu ma doon wër journaliste yi. Hmm. ku ku ci nekk may wër journaliste yi naan la gaañ. Hmm. jàpp ci jàpp ci pour. man mi woo nga ma téléphone naan ma image yooyu dimbali ma ngir yàlla. merci fekk ndekete Lamine moom filmé na ba dem ñibbi. <laughs> moom moo raw yow. liggéey bi la nag. waaw peut liggéey bi la lañ leen di comprendre. mais tamit ñun ñun ak yéen ñoo bokk liggéey bi. buñ gisee lu nga xamante ni rafetlu suñu der am nañ droit ñaan Mm. te buñ leen ñaanee amul leen def leen lu dul may. force wuñ mënoon leen pour image bu mu génn. Mm. dañ ñoon ñaan pour image bañ a génn. Mm. ku ci mel neen Ndeye Mbacke. gis naa ko Ami kole gis naa ko Naatu gis naa ko euh, Sali gis naa ko ñoom ñëpp ma ñaan leen quoi yow sax dama la woo téléphone j'espère xaw ma dama la gis wax la ko. ndekete sawaay dem na bu yàgg kii kii Leewtoo. lit lit jël na ba dem. <laughs> ndeysaan waaw ah, mais loolu liggéey bi la. mais maa ngi lay jaajëfal bu baax. Euh, lan nga bëggoon wax too xamante ne laajuma la ko te bëggoon nga ko wax. waaw li mu li li nga xamante ni bëggoon wax mooy di sant ñi nga xamante ni ñooy sonn si man. Hmm. mel ne Lamine Touré ak waa mi waa Sofraco maa leen di siyaar bu yàgg ba dafa war a dekkiwaat. Hmm. incha allah di wax ne sama sëriñ bi nga xamante ni moom la ñuy wax sëriñ Modou Cissé. Hmm. daara ji muy taxawal bon dinaa la jox image yi sax nga monté wàll ko ci vidéo bi incha allah. Mmh. damay ñaan ñëpp bonne volonté yëpp ñëw jàpp ci bonne volonté yëpp ñëw jàpp ci xam nga daara ji mën a taxaw parce li tax mu samp daara ji mooy donga yi ñu koy jox moom këram pare na mi moom mi ngi dëkk ci këram mais dafa jënd terrain pour tabax ko daara pour mmh. donga yi ne ci mmh. fayeku benn donga fenn mois ay daara la yor ay taalibe ñoo ciy ne ñoo ciy dëkk ñuy wax bonne volonté yëpp ñi nga xam ne lislaam moo tax ñuy def ñu leen di ñaan ngeen ñëw jàpp ci bu baax a baax xeebuñu dërëmu kenn xeebuñu daraay kenn comme Tonny Ciment boo yeboo jàppale lu ñu waay mën a dimbalee ku ci mel ne grand Cheikh Gueye borom alkamar xam nga nga xamante ni champion bu mag boobu ñuy wax alkamar ci ci ci ci élevage moom moo ko yor. Hmm. xam nga Cheikh Gueye commerçant. Ahmadou ma nga xamante ni lu mu dugalul soble ci réew mi baaxul ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo. bu baax a baax manqué na ci dëkk bi moom. waaw taa waaw ñoom ñëpp ñu di. tàllal loxo màggal gee ngi na nañu wàccee lépp mu ñëw. waaw incha allah Ahmadou hmm. loolu. Hmm. gaa ngi ñëw te yow yaay boroom jumaa ji soxla mm. si na bari boog te wàcc bu baax a baax a baax mm, mm. boo demee marché Gueule Tapée di nga ko fa fekk ñu di leen wax ne carrément ñu jàpp ci ñoom ñëpp ci barki maam Serap Fall ba loolu mën a jàppandi xam nga di nuyu war Lamine Touré bu baax a baax maa ngi koy nuyu suma xarit nangoo sonn si man lool di nuyu Baara Kolobaan maa ngi koy siyaar bu baax a baax di nuyu suma papa suma xarit sama lépp waa maa ngi koy siyaar maam Thierno père Thierno maa ngi koy siyaar bu baax Matar Thiam suma rak nga xamante ni bu xëyee gis ma sax day problème Mm-hmm. di nuyu suma fereel yëpp di nuyu waa Diourbel bu baax a baax a baax di nuyu waa ASC Mansour bay Mass kafe Ngañ Fay xam nga Alsaan Fay gars yi bàyyiwuma kenn maa leen di siyaar ñoom ñëpp. Mm-hmm. Nday Mbay suñu jigéen xam nga may ngi siyaar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu Viendour Galas xam nga ak ak ak Ngom Père Babacar ñëpp bàyyi ma kenn daal Ousmane Ngom gërëm képp kuy bëggee place ndaykan bi ñuy toog ñëpp ñëpp maa képp kuy bëggee ma seen si maa ngi lay siyaar mhm. xam di nuyu waa Géejawaay encore une fois du siyaarat waa Sofraco maa leen di mhm. siyaar Boga Ndigal Modou Vieux bàyyi ma kenn ñëpp maa leen di siyaar encore li ma gën a ñor ci émission bi li ma gën a ñor ci émission bi mhm. mooy daare Serigne Modou Cissé ji encore une fois incha allah waaw mu sottee jàmm incha allah am na solo mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Eumeu Sène lañ dalaloon doon waxtaan ak moom lu bare bare bare ci wàllu làmb dégg ngeen taxawaayam ci làmb position bi mu am ci làmb Eumeu Sène nee na bëgg na bëreeg Gris 2 na bëgg na bëreeg doomu Dangu nee na bëgg na bëreeg Serigne Ndiaye 2 ñoom ñooñu ñëpp kum ci am incha allahu rabi. Serigne Ndiaye 2 la rek. ba tey loolu waxi mbër la rek wuti leneen daal ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi di leen jox di daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen